ubbiku ci préfet yi fi mas a nekk yëpp ak euh, taxawaay bu mat waaye looloot la fekk ci mbooleem chef de service ak sous-préfet yi nga xam ne ñooy ànd ak préfet ci CDD bi muy taxawaay yoo xam ni taxawaayu patriotique la maanaam taxawaayu nit ku yëg ni mu ngi taxaw réewam la ku defee loolu dañ ciy gërëmaat yàlla bu baax di ci gërëmaat ñi leen fi teg ndax li ñu mën wax rek mooy fii ci Thiès tànnal nañ ñu ñuy ànd ak ñun liggéey boo xam ne liggéey bu sell la ndax loo fi wax ca saasa rek dañuy daal di ñëw euh, taxaw la ca wàll googu gàmmu Cees nag nekk na loo xam ni euh, gàmmu maam Alaaji Rawaan Ngom la radiyallaahu taala te boobu buñ ko tuddee tudd nañu mboolem kuy kilifa diine ci Sénégal ndax amul kenn kum ci jëflanteelu dafa siiw te nekk central bi jëflanteem ak Cheikh El Hadj Malick Sy radiyallaahu taala mais doo fi tudd génn kilifa te amuñu diggante ak moom te am nañu ci ay document yu wér am ci ay xalaat yu wér am ci ay dégg-dégg yu wér bu ko defee koon gàmmu gi noonu la demee euh, buñ koy defee ci Thiès daanaka ñi koy séq di ko doxal tariqa yëpp da ciy fekk dañ ci fekk sax ñoo xam ni nekkuñu ci tariqa may ébaadu lañu donc loolu lépp lu ñu waral mooy kon gàmmu gi gàmmu Thiès la noonu nag la ñu préfet di recevoir chef de service noonu lañ leen di waxee ñun li bugg noonu lañ lañ koy nangule ak engagement yu wóor a kon euh, li ñu am yaakaar mooy gàmmu gi euh, daaw gënu na jàkk yi weesu am nañu yaakaar ni bii dana gën a jàkk li nga xamante ni mooy mooy mooy yi weesu yëpp kon bu ko defee nga xam ne aussi ñoo ngi ci fas yéene euh, traité thème bu am solo te mooy jéggale ak jëllale nga xam ni boo nattoon ni société boo mën a gis mu ngay dunde loola di nga gis dina développé lu baree baree bare ndax seetal nit ñi ñaata ñaata junni ñaata ñaata xaalis la ñuy ci wàllu euh, wàllu avocat lañuy ñuy ci wàllu fay lu ni mel te la koy indi rek mooy juuyoo ñàkk a jéggale ñàkk euh, ñàkk a jëllale euh, jëllale ak jëllale bu ko defee kon ñun dañu gisoon loolu facteur de développement la parce que xeex bi ci boppam sax bu amee jéggaleeg jëlale mu amul seetal rek ñaari oto yi doon xëccoo tey jii euh, euh, kan mooy jëkk a jiitu mbëkkante am euh, jëkkante ba arrêté na yàkkamte ga arrêté na dañuy kenn xamul fu muy mujj oto bi nga mbëkk fan lay mujjee ndax yàquwul ndax yow tamit amuloo ci gaañu gaañu donc yëpp dañu waxoon ni bu fekkee nit ñi ñoo ngi jëlal di jéggale kon adduna bi incha allah dana nekk ci anam bu yéemee yéeme bu defee loolu daal moo doon cosaanu temu ren bi yàlla dogalu chef de service yi nga xamante ni wax nañu leen ko tey jii kenn ku ci nekk jël na engagement ni fu mu yemoon daaw dana ko gën a améliorer ren te tamit kenn waxu fi mënuma jël nangam waaye koo ci wax dafa naan mën naa jël lii mën naa ko jëlee ci lii te loolu yaakaar naa dana nekk luy am njëriñ. ren jii gàmm gi war a toll ak avril waaw loolu loolu loolu ci wàllu gépp chef service yi fi nekkoon muy police muy sapeur. Euh, sapeur muy euh, euh, ñi nga xamante ni mooy hygiène euh, croix rouge kenn ku ci nekk ne na mbir ma dana xaw a jafe waaye foofu daañu jël ay éléments yoo xam dañ ko jagleel gàmmu bi ndax ak lu mën a xew kenn du bàyyi ay junni nit fu ñu daje kenn organisé wu leen donc looloo tam maanaam responsabilité bu ñu jël la engagement boo xamante ni nit ku xam li xew ci àdduna moo ko mën a jël te ñoom jël nañu. waaw ngeen euh, war a dajale ay millions bari euh, matuwaay yi mooy li ñuy faral wax jamono ju nekk xam nga lislaam dafa bëgg set dafa bëgg a set te euh, daf lay wax ni na ngay maanaam nangay fexe ba yi waral tawat nga moytu ko beneen bi ci des mooy koo xam ni yëg na ni. Euh, am na jàngoro ji xam naa kenn kenn du di ñëw dem ci mbooloo xam naa ku ñëw ci mbooloo andi ko fa fekk na yëgul ni amee na ko waaye fogarwaay ñaar moo am dafa am boo xamante ni euh, en tant nit mooy ci wàllu set ñi nga service yi nga xam ne ñu amee wàll googu wax nañ wax nañ ci ak ñoom ba ñu teg ñi ci aw yoon ni nii la def kuy dugg daañ ko wutal mu raxasu euh, dem ci tànt bi ba nga xamante ni au moins loxoom loola du ko ca du ca du ca kenn kenn du ko ci wàll euh, beneen bett mooy ñaan ñaan moom moo gën a efficace yooyu yëpp ndax sama borom subhanahu wa taala comme ni ko yonent bi waxee sallallahu alayhi wa sallam maanaam wàcce yàlla wàccewul benn jàngoro lu dul wàccee na la koy saafara nit ki xam nañ ko la réere nañ ko te ñaan dafa am solo euh, ñaan gi nag mën loo wax ñëpp ni jàng leen nangam waaye li ñu mën jàng ngir eh, jotaay mucc li ñu mën jàng ngir nit ñi mucc bare na te kenn ku ci nekk ci ñii ñu àndal ñi ak ñi nga xam ne ñooñ ko seqal ñoo koy def pour benn jotaay bu mu am eh, ba pare virus bi tàbbi foofu loolu ñoo ngi koy ñaan te am nañ